war dem ñun Afrique dem outil la connaissance directe mom nee bañul ben jeune africain contesté ko bañul kenn ñew def ah, dindi limu wax mais na fekk que beaucoup dindi nang que ko jëlee yow ci sa xam-xamu ou dem formé wu même si si c'est pour revenir me contredire allez vous former directement lol dafa am lu am solo benen bu may ki moy limu wax impact bi mais ñun fiñu tok ni exemple bi gëna woor moy hip hop dama koy wax chaque jour ji hip fii boo fi xoolee rappeurs yi fi xam Malal la Paco la euh, ñagas la ak yeneen gars yi nga xam ne ci underground bi lañ nekk mais bëri na ñuy fréquenté jii hip ñoo xamante ne mais du ñu téye micro di rap mais ay hip hopeur lañ mais bu ñu xëyee fajar la ñuy xëy man heure bi may xëy bi may yeew la ñuy yeew plus tard 9 dañuy dugg ci centre bi bu ñu duggee centre bi da nga leen fekk ñu tëju seen bureau yor seen ordinateur nekk ci li ñu war a nekk ci loo xamante ne loolu mooy yoon. maanaam di nekk di liggéey 13 heures nga wàcc ñu wàcc nga jiitlante wala ngay croiser ñoom ñuy añi yow ngay añi 15 heures ngay gont si ñuy gont si 18 heures wala 19 heures ñu tëj centre bi dafa fekk kenn ñëpp ñibbi nañ mais ñooñ dañ xëy di liggéey dañu xëy di liggéey te liggéey yi ñuy liggéey yëpp dafa am relation ak culture urbaine dafa am relation ak hip hop ñooñu boo ci toppee ku ci nekk kenn kenn par kenn seen dëmb da ngay gis ni dafay mel ni ñooñu formé woon ñooñu inventé woon ñooñu kii woon créé woon hip hop seen démb ni mu mel donc ce qui veut dire bi ñu duggee ci centre bi seen démb fàtte nañ ko ba ñu jox leen avenir jox leen espoir ba nga xam ne ñu am ci lu ñu jàpp ñoom di xool seen kanam xam ne bu ma jàppee ci lii transformé wu naa mën naa ci tedd mun naa teddal samay waajur mun naa ci defar sama àdduna loolu la ñu bëri comprendrewul ci rap maanaam message bi bi rappeur bi di wax public bi koy déglu mu ngi koy consommé te mu ngi koy jëfee man chaque jour damay wax man ci li ma gën a éduqué hip la. ci man ci rab laa yokkee sama éducation waxuma aw ma éducation de maanaam ci rab laa yokkee sama éducation yokk parce que yaroon nañ ma pare mais dama ko yokk am na yu bëri duma ko def ci ay rapport ñoo koy wax yu bëri yu négatif maanaam du ma naan ba mandi du ma tox yamba du ma def li ay rapport ñoo koy wax ma koy dégg damay takk samay écouteur di leen déglu suba ngoon gu guddeeg bëccëg duma def li duma def li duma def li lu bon lu bëri duma ko def parce que ci man rapport yooyu dama leen bëgg gëm seen message dama ne donc ñii bu ma leen bëggee gëm seen message damay dundee li ñuy wax donc bokkul loolu dafa dal ci jeunesse sénégalaise ñu bëri ils se sont éduqués yi da koy wax la plupart de la jeunesse sénégalaise se sont éduqués à travers le rap ils se sont auto-éduqués mais euh, fii nit daf def na fi concert keroog concert bu fees dal kenn sponsorisé wu ko ñu jëli benn tubaab fële benn nasaraan bu ñuul joxo ko jox ko xaalis bëri kenn nekk fa concert hip hop yi fi mujj am yëpp déggoo fi agression lamb mooy tas gars yi di agressé événement politique mooy tas gars yi di agressé mais hip hopeurs yi réglé noonu loolu seen biir. pourquoi parce que booy bu ñu tasee fii Guédiawaye Baye rab balaa muy tëj balaa muy jour bi muy tijji malal day jël micro taxaw ñëpp di dégg muy wax agression yëfu tàppet la lii yëfu tàppet la guerrier dëgg góomu doomu gétoo day gëm boppam. day ñafe day def lii day def lii joxleen ay message yu positif concert bi heure bu mu munti tas booy dañuy dox ndànk ñibbi seen kër doo fi dégg agressé nañ fi kii doo fi donc message bi ñoom ñu ngi koy dégg ñu ngi xëy di liggéey ñu ngi xëy di uti ñu ngi xëy di dund suba ngoon hip lañuy la ñuy déglu donc li ñu leen di wax ci message yu rab yi loolu lañuy dundee donc nit ñi ñoo war pour man dégluwaat peut-être dafa xaw diffisil pour un sénégalais mu accaparé wu nangu rab def ko moomeelu boppam parce que culture ou bi dafa ancré wu ba nga xamante c'est un peu difficile quoi mais je pense qu'il y a plus du positif dans le hip hop que qu'autre chose quoi